damay rafetlu euh, population bi dal gi ñu am parce que yag na mbedd mi ni mel ça fait des années ñu diko joy mais mais wu ñu ngi muñ mais ku ñeu fi xam ni wax deug yalla population bu len ñeu dekk fi dina nek lo xamanteni nak état bu nek nak waru ci baña mëna duggal loxom motax ñun ñi fi nekkal nak euh, di exercer pouvoir président de la république les communes ñu mun ñoo tànqamlu bañ fi ñeu motax chaque année comme niko population bi waxé chaque année dina ñëw jéem fi li nu man wane fi euh, sunu yéene vraiment pour jéem leen a euh, xet dimbali tuuti ci yoon wi nga xamante pour ñu mën ko pratiquer parce que comme ni ñu wax ni ni emprunté yoon bi amul benn avenue fii ci biir Thiès bu ñuy def parce que route bi xam ngeen ni mooy route nationale day jógee Kër Sëñ Ablaye dem route nationale numéro 3 continuer ba taseet ay euh, pour Jabaas Noto

ku ne xam na ni kër sëñ vraiment sëñ Ablaye Yaxin ku ne xamna na représenter ci Sénégal annuellement gis ngeen gam gi nuy mel kon lu melni ni am ba paré ñu mën ko bàyyi nii te nag li ci gëna a jaaxal mooy chaque année mission ñëw des directeurs de service et en même temps avec des ministres man naan la cité des missions yoo Omar Gueye ñëk na fi ñëw comme limay wax ñun ñoko ko accueillir ñoom Khadim Diop mais ñom ñëpp won nañ leen ni leen site bi ni mu mel population bu doy ni bu tawé et puis ñu gis nag intervenir fanel moo bëgg rappeler leen xamal ne Thiès ci Sénégal la bok quartier yu mel ni ministère yi ñëw euh, visiter lu accès ni ak direction gis lu menu va ba pare duñu def benn feedback loolu moo tax ñu leen di rappeler nañu nañu gestu nag population bi parce que nag euh, Thiès ci Sénégal la bok président de la République moom moo fi mooy président Sénégal yëpp mënu mën a ni Thiès lu mel ni Thiès nga xamante ni mën deuxième capitale du Sénégal ba paré ñukoy bayyi ak état yu délabré yi vraiment rafetul motax ñuy lancé appel que ni euh, nan ñu ñew gestu nit ñi mais il faut que ñu teg affaire politique feulé président amna na ñu ko fi nekkal xam nga ministère yi seen direction ñu ngi fi gis nañ li xew Thiès bu dé ci walu politique aussi seen responsable politique ñu ngi dëkk ci koñ yi donc ñoñu war nañ leen servir di leen wax li nga xamanteni mo xew ci koñ yi ñuy mëna gis parce que lool ci lañ leen di nawee kenn du leen nawee ci wax lu ñaaw wala wax leneen mais ministère yu fi joggé ñew la ngay jëkk a def ba ci commencé par premier ministre ñeneen sànni xeer président euh, sànni xeer euh, waa Thiès la kii quoi parce que dañ naan le leadership bi nekk Thiès le responsable politique c'est Idrissa Seck mais bu mu teree nag ñu xam ni ñoom ñooy président Idrissa ñoom ñooy président euh, président waa Thiès yëpp donc muy en commençant par le son excellence monsieur Macky Sall mu xam ni na ubbi bëtam teg ko Sénégal gépp ko ñor parce que Sénégal bu defaroo lépp njabootam la kilifa nag da ngay mat kilifa tëdd njaaxaanaay mais indi par parlo politique ku ñëw ci koñ bii gis ni mu mel xam ni bu tawee kenn du génn et ça fait des années et des années suñ ñoom sax euh, ministère yi yore euh, euh, rôle yooyu jaaruñu fi à la rigueur mais nag dañ fee ñëw ñëwati fi moo tax ma cité leen ñoom Omar Gueye ñoom cité leen Khadim Diop cité leen les directeurs de service yi mu ne comme ONAS ñooñu ñëpp ñëw nañ fi mais jusqu'à présent ben feedback du am population bi nak fi ci lañu ñu bokk parce que nak li ni mu mel dafa ñaaw bon yaa ngi bëgg wax Sénégal émergence mais ba la nga émerger mais vraiment gis lo nga xamanteni ni da nga ko war a defar nga xamanteni ay jangoro lay jur hein vraiment dafa naa ku taxaw fi wara waratoo xalaat leneen te ñu ngi leen di dégg ñu ngi servir yenen ñu ngi servir yenen kon donc loolu ñuy servir fanen fi nañu li fi nek dafa naa kenn waru ko romb kon loolu motax tax lancer appel daal encore une fois de plus sur nos quartiers yi nek na quartier yo nga xamanteni euh, ñun dañuy dégg ay milliards ñu koy def ci euh, ci mbënd mi mais ñun gisuñu ci zéro franc parce que li tax ñu wax ko mooy ñun ñooy jéem suñuy maigre mooy yi am avec les communes di fi ñéem a ñëw xam ngeen enjeu ngi nii c'est un marque de 966 yaa ngi dégg boo location am tey euh, presque ay 250 300 mille par jour carburant ñëwagul. kooku boo ko bëggee jël defe naa ni avec nos maigres moyens maigre budget bi nu am ça pose problème. naa di rafetlu taxawaay bi rek te xam ne li yàgg nañ koo bëgg te moo mosuñoo am kenn kuñ ko defal ñuy rafetlu taxawaay monsieur le maire ak maire di rafetlu it conseil yi mu àndal yëpp di jàpp nekk nag ci ginnaaw Pape Diop ndax suñu koñ bi ñun amul lut koñ bi ku ñu ko defaral ku ne dañuy yëg na yow mi yaa ngi ci suñu digg xol yi ndax lii lu nu métti woon la te amuñu kenn kuñ ci jàppale. koñ bi mbooleem ku dëkk Cité Senghor ku dëkk R100 ku dëkk Moussante ku dëkk Kër Sëñ Ablaye tey kontaan nga ci liggéey bu rafet bii ko Pape Diop liggéey ñun vraiment ñun kontaan nañ Pape Diop moom dañuy wane ne ñun amuñu fayam équipe bi mu àndaleen amuñu seen fay Maguette saar monsieur le daam Dame Thiam ñoom ñëpp ñun amuñu seen fey ndax macha allah bi ñu yëgee ne lii suñu bëgg-bëgg la dañ cee taxaw. dañ cee taxaw amatuñ ci sago dellootuñ ci at mi koontuñ ci biig bi ma monsieur le maire di woo booba min jot na ci guddi bi may wo bi booba min wi na ci guddi dama tiita ci nelaw jog mu ne ma maa ngi lay jéggalu ndax xamna naa heure bi guddi na way na politicien sañ ko baña wuyu may rafetlu taxaway pap job di rafetlu taxaway pap job ci koñ bi di rafetlu it gis-gisu pap job ci koñ bi di rafetlu it ah monsieur le maire mi nga xamne it muy Dame Thiam Magay sar ñom mboolem équipe bi ñu andal dara ñoru len lut koñ bi ah inshallah ñong ci seen ginnaw tay ñong ci seen ginnaw ëlëk fas leen a ndax du dara ñoru lut tali bi waaw muy goor muy jigen nak ndax Baye Isma Diop barki démb day dem ca jàkka ja dafa daanu fii ba nga xam ne macha allah ñun ñëpp ci tiitoon kon yëg Pape Diop yëg na ne muy neex mi ngi ci suñ ginnaaw muy naqari mi ngi ci suñ ginnaaw ñun amuñu lu dul maire est maire est mooy suñu maire mooy suñu maire ville mooy suñu maire bu mu mën a doon maire est mooy suñu maire dafa am ay kilifa ku mel ni Soxna Say Bata kon waruñoo defar yeneen carte yi yeneen dëkk yi nga xam ne dafa ay kilifa diina yu fa nekk. suñu ñun fii dañ ko fii lañu war a njëkk a gertu ko su ma demee këram xool ca néegu biiram laay jàll du la ma gusee a waral su ko neexoon day aju te bu ajoo nit ñi fàtte ko waaye ajuwul ni ma doon ba tey rek noonu la mel yàlla na fanam gudd yàlla na jàmmam yàgg lu mu yóotu yàlla na ko jot tali bi daal moom nañ ko defaroon ndax sunu njaboot nday sekk mi it ñu ngi koy sant bu baax a baax ndaxte bu ko neexoon du dem ca Pape Diop du ko def ay butiti jën ak ay jën lu nekk lan fiy def gone yi di fi xuus ay mbalit ak i kuus lu ne ñoo ngi koy def ci biir ndox mi ñun nag fii mooy sutu sunu sutura fii la ñuy jaayee xet gu bon gi dañuy dem ba ci yàgg bu gilleek doo fi mën a lekk doo fi mën a def neen toog sax mënuñu koo def man de xanaa yow la sa def bi la toog sax doo fi mën a dem ndax xet gu bon te ñun nag suñu sañoon di nooyi ci lu neex di tok fo xamne man mën nañ faa jaay duñu am xet gu bon duñu am dara ndax fi mu toll liggéey daan sun doole doo nga ñu tax a ak dawal sunu njabot Comme vous avez pu le constater, je m'appelle Magueye je suis adjoint au maire à la commune de Thiès-Est. Comme vous avez pu le constater, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, la mairie de Thiès-Est, avec la direction de son maire, Pape Bassirou Diop, avait entrepris un vaste programme de cuirage des caniveaux, de désensablement des grandes artères, de remblaiement, d'éclairage des arbres, d'élagage des arbres et de l'éclairage public. L'activité que nous menons aujourd'hui entre dans le cadre, dans ce cadre et permettra à la population riveraine de pouvoir circuler librement dans cette taxe. C'est un axe important. C'est la porte d'entrée de la commune de Noto et de Tasset. Les populations de Cité Senghor, de Ker de Mouridga, ils circulent pour aller au marché. D'ailleurs, le maire a entrepris avec les populations riveraines de pouvoir circuler librement dans cet axe. D'ailleurs, le maire a saisi la géroute sur la nécessité de, reprendre le tronçon cité Senghor Abdoulaye Yakhine, comme je l'ai indiqué tout, à l'heure, en état de dégradation très avancé. Il a également demandé à l'État d'inscrire l'assainissement du terrain Cosmos dans son programme prioritaire. Le terrain Cosmos, pour ce qui fréquente ici, est un terrain que fréquentent les jeunes de ce quartier avec l'ASC Cosmos, bien sûr. Cependant, la mairie, malgré la faiblesse de ses ressources, ne ménagera aucun effort pour reprendre efficacement à cette demande pressante des populations qui vivent aujourd'hui dans le calvaire des inondations. dañuy am problème nawet ndox yi day dugg ci kër yi xale yi di pour dire que boo tëddee sa ventilateur day fanaane tàkk ba bët set ndax ay yoo sinon doo ci mucc moustiquaires yi xam nga yooyu tamit liggéey bi moom am solo trop mais suñu sañoon daal. da koy defar mu baax ñu tali ko godre nañ ko defar ko mu baax loolu daal moo ñu gënal.